ak dara la la yow nag géej Magal Touba 2023 Abdou Aziz Ndiaye ñëw na léegi délégation Sojib ñëw na délégation Sojib ñëw na waaye tamit Aziz Ndiaye ñëw na moom. xam nga loola war a jàng ci lii euh, gis nga ma vaal bi nag mbokk xam nga lan la war a jàng ci Cahar kat ñoom ñëpp bokk mbuus gis ngeen mbiri digënde serigne ci la mbeur way kat dama di ban mbër ngeen gis manam wala ban kat wala ban kat ngeen gis ci lo xamne ne diina deug dëgg la diina bu roxul dara nga gis leen fa loolu bariwul wala boo tuddee benn doo tuddaat keneen. kenn ki ñu ci commencé woon gis sax dañ ko commencé woon ak nit ñi. waaw commencé woon diaboliser te kooku sax mu ngi mu ngi mu ngi ci ay mbërëm. gis nga ko. kii la wala kan la. kii soxna xalif bi la. ah soxna xalif bi moo mel nii dafa xeesal ba ba xonk nii. waaw moom moo mel nii moo toog gaañ a suuf. léegi non est-ce que vidéo bi parce que man dañ ma envoyé benn vidéo mais du bii quoi bon gisuma ko ah maa xam ne gisuma ko nawul nawul ci kii boobu am vidéo bi na ma ko envoyé fu ñuy vaaree fu gars yi di vaaree sëñ ci wax bu mu waxoon ci ndaw si ak bi <laughs> soxna Vatican soxna Vatican bu bu. <laughs> ok léegi bu fekkee bu na dugal soo amee ñoo dugal Younus ñu mën a laaj fan màggal wala maa xadi boo mel Vatican maa xadi bismillah ñu lay déglu loo si sa addi waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah Yunus maa leen nuyu aleykum salaam wa rahmatullah leen di nuyu yéen ñëpp aleykum salaam wa rahmatullah waaw tontu alhamdulilah jarbaat yan yàlla fay la njaboot gi mbokk yi di ñaan ngeen partagé ñu leeral dugg yàlla ji di wax ne caaxaan yi incha allah day jeex Sénégal alxuraan ak sunna tasaaroo xam nga nee naa leen màggal Touba du xew-xewu diine événement la boo xam ne benn entreprise familiale ñoo ko créé ndax lan ndax dañoo xool population sénégalaise bi jàngat leen xam ni population bi population bu neex a nax la surtout nag ci wàllu diine. ñu ne nañu créer entreprise boo xamante ne ñun dinañ ci dund ba jóge fi suñuy doom dund ci ba jóge fi suñuy sët ci ba jóge fi ma waral ñu créer événement bii di ci woo nit ñi chaque at ba pare nag tabaxal leen jumaa bu rafet di ci suul seeni néew er yi ci bàmmeel yi foofu ñaan sa soxla néew yi fa tëdd ba pare sànni sa xaalis nag dem sa yoon xam nga li paradoxal si boppam mooy que jullitu Sénégal yi ñi ëpp ci ñoom du ñëpp de mais ñi ëpp ci ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñooy wuy ji woote boobu seen kër la ñuy toog jàkka ji naan leen xayaalu salaa yàlla falaa duñ ko faale yàlla bi leen sàkk di leen woo julli ñu bañ benn famille organiser événement wam di la ci woo nga di ko wuyu te man li li ma gën a jaaxal mooy li gën a garaaw mooy màggal tuubaa wax leen ma ban njeexintal la def ci jeunesse bi kan ngeen mës a gis mu dem màggal ba ñëw rek imaanam yéeg magal yalla commencé jaamu yalla ban jigen ngeen gis mu dem magal ñibi ci baye léttu mèche parce que xalif bi def na discours bo xamantene dina tax jigen ñi ko amul magal gi ba magal gi jeex feccak way mo fa am lek nan bokalé bida bërëngu ci ay bammel yëkëti sëriñ bi waccé yalla yëkëti doomu sëriñ bi tutal sahaba. yi lool do nga am magal motax xol leen jeunesse sénégalaise jeunesse bo xamantene elle a été pervertie de la tête aux pieds jeunesse bi ku ci gëna sanku nga ni ma ki té même jeunesse bobu non di dem magal ñom bu nawetaan jotee ñom ñoy dem nawetaan bu wali sék di tëgg soirée ñom ñoy dem ci soirée ba bu Viviane organiser concert ñom ñoy dem ben groupe la bo xamanteni xamuñu fu ñuy taxaw. dañuy téré rek di dem. sama ma xali faté nga lamb ci wal merci bu lamb amé même personne yoy non di dem magal ñom ñoy dem ñom ñoy demat ci lamb ja mais kon sëriñ ci ñom ban njëriñ lañu am ci askan wi. te ndaje yi lan la jëriñ askan wi lan moo tax màggal buñ ko organiser ñu leeral tawxiid bu fekkente ne njub la ñu bëggal jeunesse bi lan moo tax bu màggal jotee du ñu leeral nit ñi jàngale yonent bi ma lii moo ma jaaxal lu tax ku jóge màggal ba ñëw gën a ràngatiku gën a réer gën a sànku màggal tubaab du am mukk ba ñu jël benn téere boroom xam-xam di ko jàngale xalaatuñ ko wax leen ma ndax loolu mës na am mës ta am màggal Touba du jot mukk ba ñu jël benn aaya kese waxuma la alxuraan bi mais benn aaya kese ñu jël ko ne dañuy tafsir pour xupp nit ñi ñu delluwaat ci yàlla duñ ko def parce que jubal nit ñi taxu leen a jug sànq nit ñi moo leen tax a jug ay wooteekatu seytaan lañu nañu waxante dëgg yoon bu baax bi mooy alxuraan ak sunna yoon bi yàlla gërëm mooy yoon bi yonent bi nekkoon sallallahu alayhi wa sallam yoon biy tax nga texe mooy yoonu siraatal mustaqim te yoon boobee dafa wuteeg tarixa yi. tarixa yi dalay sànq àdduna ak àllaaxira ku moytuwul nag yow mal xiyaam nga ci xam dara te day fekk se trop tard wala billah ngir yàlla yeewu leen màggal Tuubaa mafia moo ko organisé mafia religieuse bi mafia maraboutique sax laay wax sëñ Fallou moo njëkk woote màggal Sénégal bu leen ko fàtte sëñ Tuubaa musta màggal Moustapha sëñ Moustapha taawu sëñ toog na ba jóge fi musta woote màggal Fallou Galas moo njëkk woote màggal moo fi njëkk a woote ay affaire u àddiya moom ak Senghor jamonoy Senghor la loolu donc yeewu leen te xam ne lii business la dañ leen di dañ leen di nax yeewu leen diine lislaam amul fayeeku amul pri gratuite la yonent bi liggéey na li muy liggéey ba mu mat sëkk ba yàlla gërëm ko yàlla nañu roy leen ko kon ñun moom la ñuy topp soxlawuñu maamu keneen ngir yàlla yeewu leen mbokk yi ñoo ngi ñaan ngeen partagé ngeen tapote bu baax ñu leeral dëggu yàlla ji tonto Ismaila Cheikh Alpha Cheikh Yunus ma bàyyi leen ngeen continuer incha allah. Euh, euh, Samba envoyé ko sama WhatsApp envoyé ko subhanahu wa ta'ala gis na moom kay gis na maa xam fi ma d' accord yow mooy am lu ci yokk de nit ki buñ ko ni ko sa biir li li ñu daganal ko ci ak yi nga gisul nga gis ah nga gisul nga gis yow mi daawul lekk ay ay ay ay fromage ay genre affaire yooyu ñun la tey jii mën nga ci lekk ba daanu ci géej gi maanaam mbir mi loolu la ah. du leneen léegi léegi mbokk yi déglu leen déglu leen ci ne ñoom ci ko dama ko tontu dama yaa ko so ma ne ko ma ne leen am na loo xam soxna si wax léegi moom nee na ci ndigal li ñu la ko nag ndigal ak tere nag ñu ànd parce que bu ñu tàggoo foofu rek laa cee mën foofu. bi mu fii yaatal naa wax ja lool ci bëgg a tekkali dëgg ak fen soxna yi waxoon naa ko ni ko fii li mu bëgg seen bopp li ñu bëgg suñu bopp rek moom la ñu bëgg li mu bañee suñu bopp moom na wax ko waaye bu ma ndax man daal du bi léegi. لم يكن لأنه تدرك يعني دفع دفع يوم ما تدركه وحقه فهو لا يم كي وهم ما قيس لا يدفع كل ما ما يسلم نكون كل أما هو سالي اليوم لك قلنا من أدينا جالس لسان أمرتون جالس لسان جالس لسان أمرتون أمرتون أمنا لو خان بخير لكن يدري في في يلا في في أرجال الله يرحمه ah léegi bu jaasi islam amoon jaasi amoon dañ leen di rey quoi. dañ leen di rey waaw bu jaasi islam amoon dañuy rey ay na jàll. waaw léegi subhanallah mu ne comme ginnaaw jaasi islam amul nag lu ñu mun rek moom mooy ñu sànni leen maanaam sànni leen mooy ñu beddi leen sànni leen fële parce que fii mu ngi wax ci Aïda Diallo wala xaaral ma arrière ko ngeen gën a ngeen gën a déglu. أب فمجكي وحكم تجاري تتمهلك وحنا بعقل وحتى نيوم تنيجل لنيوي ما تنتكو ما كنت تنتو ده ما كنت yaa ko ma ma ne la am na loo xam soxna si wax léegi moom nee na ci ndigal li ñu la ñuy wéy ma ne ma ne ko nag ndigal ak tere nag ñu ànd mosuñu ñu tàggoo foofu rek laa cee mën boobu bi mu desee fii yaatal naa wax ja lool ci bëgg a tekkali dëgg ak fen soo naa da waxoon naa ko ni ko fii bëgg seen bopp li ñu bëgg suñu bopp rek ñu bëgg ñu bañee suñu bopp ñu nit bañ loola toll na wax ko waaye bu ma déggee mu waxee ndax man daal du tumbe léegi la ma waxoon laa lu ca dara daa ne dafa dama ñëw dama teral ko waxal ko foofu la yem ci waxam ma gis la ñuy def kon moom ma nga ca lem na kon kon daa ma waxoon saa yu rek ginnaaw ñun ginnaaw jees li sax amatul jees li amatu bu am na loo xam ne bu xewee dañ leen wala ñu fa wala faagaa leen ko ak ak bomb waaye loolu yàlla soppi na jamono euh, loolu loolu nguur gi rek ñoo ñaan boo ko sañ-sañ. waa kay waa kay nañu la léegi léegi lii la wax ci soxna soos ñoom ñëpp a yem ah ñoom ñëpp a yem soxna am seek soxna bu foofu fari mais lii la waxoon moom ci soxna soos léegi ñu déglu ñu déglu ñu déglu léegi dañu dem seetaan soxna am moom boo ko jël si maam Cheikh Ba bu xamal ni soxna Sane. lan mooy soxna si bëgg. allah ji fàllu mbàkk. balal maaram. boo ko jël si maam Cheikh Ba bu xamal ni soxna Sane ginnaaw. balal maaram. sëñ maam barki allah ji fàllu mbàkk. lan mooy soxna Baye Diabaji bu ñëw. ki dénk soxna benn. lan mooy Baye Daara yi bu ñëw. soxna Baye Moustapha Diabaji. soxna Baye Cheikh Soye. ah. di soxna Baye. lan mooy soxna. di soxna Baye. lan mooy soxna Baye Moustapha. maa ngi ko tàmbali na fii ko soxna Baye Moustapha soxna Baye. ok léegi la mu doon wax ci soxna soosu nañ ko war a moom la moom la moom jabaram di def fii nga baal ma rek Mbàkke waaye tey tey du yomb de baal ñu rek dafay door de soxna Bally Mountakha Baboye ngi noonu kon ancien lutteur ñëw na fii ci kër soxna Bally Mountakha waaye le lion de Guédiawaye moom it ñëw na fii ci kër soxna Bally Mountakha Balla Gaye 2 ànd naag délégation bu am solo ñëw fii kër yaayam xaritam soppeem nekkoon fii ci kër Soxna Bally Mountakha Abdou Aca dalal ko Abdou ak dalalal la na léegi délégation Sojib ñëw na délégation Sojib na waaye tamit léegi xam nga loola war a jàng ci lii euh, gis nga ma vaal bi mbokk lii du vaal xam nga lan la war a jàng ci lii caaxaarkat yi ñoom ñëpp bokk mbuus gis ngeen mbir yi diggante sëriñ si la fecckat mbër waykat dama leen di laaj ban mbër ngeen gis mu naan wala ban tiaxan kat wala ban fecc kat ngay gis ci lo xamne ne diine deug dëgg la diine bu roxul dara nga gis len fa bari wul wala bo tuddé ben do tuddaat keneen kenn kiñ ci commencé won gis sax dañ ko commencé won jaboliser ak nit ñi waaw ko commencé won jaboliser té koku sax muy muy muy ci ay ya morom man mënuma ci mënuma ko tàgg ko def dara <laughs> tànk muy ngeem bu mënuma ci wax ci mom dara dalay won ni ñii ñëpp bokk mus affaire mafia la diggante tarixa yi yenn politiciens yi yenn caaxaatkat yi ñoom ñoo far ñoom ñooy seetante ñoom ñooy ziarante ñoom ñooy tuddante ay doom ñoom ñooy mayante xaalis caaxaankat ak caaxaankat ñooy ànd alxabithiina lil xabithaat waa neen foo leen fekk ñoom ñooy bokk équipe bokk kuréel ñom ñoy far mo da selu leen rek ay mbeur ñe gis ay geewal yu wayan bo ba geewal bu yu wayan la wax nak bu leen yàq sama waxuma géwal comme geewal bu yu wayan ak ay mbeur ngay gis ay ay kat ak ay way kat ñom rek ngay gis ci sëriñ sek jabaru sëriñ parce que jabaru sëriñ si ñooñu la ñuy bëgg. te sama tu جلنا It was Chad who told us boog soo mënee envoyé bas fi mu waxee màggal gën tabaski ay yu muy indi di saxal màggal incha allah léegi Yunus boo mënee yëgal. maa ngi si sama boobu incha allah. waaw sax nga yëg incha yëgal gars yi ah. Mhm. mbokk yi lu ñu wax lenn rek la. màggal Tuuba ay caaxaan la ay business la du diine du diine diine ni nga koy xamee lii la yàlla moo ne yonente yàlla moo digle wala yonente bi moo jëf wala saxaaba yi ñoo dëppoo wala julli ñu ñoo màggal Tuuba benn événement la boo xam ne benn famille ñoom ñoo ci micro bi ba Cheikh ah, ah, léegi nag layal bi ku ñuy layal salaamaaleykum ah oh, yu yu da koroon da ku ñuy layal màggal ci diine na màggal kat ka fa dem di nga na ko teg ka fa dem da nga am tiyaaba ka fa dem da seen bàkk say bakkaar ka fa ngay dugg aljanna ku ko mën a layal ko ci alxuraan ak sunna nga dañu màggalkat ku fa dem yiw la ku fa dem da nga am tiyaaba parce que aaya bii laa ko teg wala xadis bii ko teg ñu lu ñu gëm mooy màggal ay foola wutkaayu xaalis la lekkukaayu xaalis la du farata du sunna du lu ñu encore du farata du sunna du luñu sopp du ci benn au contraire ku fa dem bakkar na fay jëlee wax da nga dem ci loo xam ne ay bokkaale yàlla la da nga dem wuyu am nit am nit boo xam ne moom moo yoonal ci diina ji naka sulu noonu nga dem wuyu jóge yàlla mu ne am lahum shurakaa sharau lahum min ad-diini ma lam yadan bihi llah salaamaaleykum ndax ñoom déglu sëñ bi tuuti ndax ñoom ay bokkaale ndax ñoom dañoo am ay nit yoo xam ne ñoom jël ñañuy bokkaale ñu daganal leen shuraka shar'u lahum min ad-diini maa lam ya'zan bihi dañoo ay bokkaalekat yoo xamante ni ay bokkaalekat yoo xam ne ay nit ibnu Muhammad doo tëj sa micro ah s'il te ay bokkaalekat yoo xamante ni ak ay nit yoo xamante ni ñoom ñoo ñëw di leen yoonal ci diine ji di indi ci diine ji doo xam ne màggal Touba ci loolu la bokk màggal Touba dafa nekk benn mbir boo xamante ne ay nit ñoo ko fi teg di woote seeni baay di woote seeni maam du yàlla la ñuy jaamu loolu amul ku la ne yàlla la ñu fay jaamu du dëgg jaamuñu yàlla ay nit la ñuy jaamu soo fa demee ci bàmmeel yi man yàlla dimbali musuma fa dem mooy dëkk ba musuma fa teg sama tànk waaye gis naa tele lañ fay def ay nit dem nañ fa ñëwaat di ma nettali lañ fay def benn femme temps yi la bàyyi dugg ci sunna mu ne bu màggal jotoon da daan dem ànd ak ay doomam day jël ay doomam ba ci bërëbu sëriñ ba ne doom yi toog leen fii ngeen ñaan seeni soxla nee na ñuy ñaan sëriñ bi direct mu ne moom bu daan doom yi ñaan leen seen ñaan leen soxla tudd leen sëriñ bi neen sëriñ tubaa may ma nangam ci bàmmeel bi ne day sentir ni doom yi dañuy hésiter pour ne Serigne Touba ma parce que xale dafa fitra nee na moom da koy ñaan aisément mais jour bu sama doom yi kaay leen jour bu ne sama doom yi kaay leen leen ñaan seen soxla tudd leen sëriñ mi ngeen ñaan seen soxla nee na day sentir ni doom yi day dis lu ñu wax loolu mais moom day yomb ci moom wallahi lazim bal parce que xale yi amaguñu bàkkaar dañoo am fitra fitra bu leen yàlla mooñaaleel mooy fii waaj yi tëdd fii mënalul boppam dara mooñaale ay doom waaye moom mi nga xam ne fitra bi jeex na ci moom ndax yàlla yoon sallallahu am wasallam moo ne fa abawaahu yu hawidaanihi aw yu nasiraanihi aw yu majjisaanihi bu juddoo day judd ci fitra day juddu ci tawxiid bu leer naññ papaam nag moo koy def tijaan moo koy def murit moo koy def laayaan moo koy def leneen ak leneen ak si nag moom xëy na dem ba màgg fekk ay papaam nekkoon loolu papaam def ko loolu mais doom yi mu jur nee na bu waxee doom yi doom bu ñu àggee ci turu sëriñ bi nee na doom yi dañuy lox du ñu mën a tudd turu sëriñ bi sëriñ bi ma nee na doom yi dañuy lox dañuy tiit taay la alhamdulilah yàlla dindi na ko yàlla sooy na ko saa yoo ay ay deux ans ak yooyu génn na ci xool de loolu comme mbir bi nga xam ne dalay woo ci bokkaale bokkaale bi nga xam ne mooy bàkkaar bu yàlla gën a bañ innahu man yushrik billah faqad xarama allahu alayhi aljanna inna allaha laa yaxfir an yushraka bihi ku bokkaale yàlla yàlla du jéggal bu faat ku bokkaale naam bakkaar yu bon yooyu màggal nit dangay dem màggal kan ngay màggal doomu aadama ngay màggal doomu aadama yelloowul màggal yàlla mooy ku màgg ndax doomu aadama màggul doomu aadama day def yu doyee di doomu aadama day lekk di naan doomu adama day dem ginaaw kër doomu aadama ngeen baal ma day tekki tubay doomu aadama bu faatoo dañ koy tiim di ko sang ku lay tiim di la sang dafa tiim sa lépp kon kooku doye di la kooku yellawul màggal wax leen ma ban sëriñ mooy faatu sanguñu ko wax leen ma ko sëriñ yi màggal kan moo fi faatu te tiimuñu ko ñu ay cëram di ko sang boo la ci xamee kenn nee la ma kenn nee la ma kii la léeg nañu indi la histoire ku disparaître falaise u Bandiagara disparaître boo xam ne boobu léegi kenn mënu ko trouver wax leen ma ban moo fi faatu sëriñ yu ñu gën a daf yàllaal ci Sénégal kan boo ci faatu te ñu ko samu ko boo la ko xamee wax leen ma ko nee ma kenn la mais alpha alpha ki wax dafa disparaître sax nan ngay disparaître ñu rek ñu récupérer sa jaasi ak sa yéré moom kay disparaître lool histoire lool histoire bu lool histoire voilà voilà légui nit koku est ce que yello da nga xoy magal xol baab ni ko tu légui nak ñenn ci ñoom ñi nga xamni nenañ baatu magal xamne bu ñu la non dañ ko tuddé magal mais chant la mais naka ngay tuddé mbir magal paré tourné wat na chant la ko mbir bi ñaar mo ci bokk màggal cant lañ balla ci cant la walla màggal la màggal la wala cant la ñaareel bi mooy ban cant la islaam digle cant boo xam ne at ba at la cant boo xam ne at ba at la fa la islaam digle ab cant ñu ne la cant bii kat ab cant la waaye at ba at benn bis lañ ko jagleel cant bi at ba at bis bobu bu delu se ñuko ci ciy sant est ce que sant yalla jarna na ben bis ci at bi loolu mooy benn ñaareelu mbok est ce que cant yàlla jar wu ñepp wutali ben gox ko ban sant yalla la islam islam kañ la digle sant yalla bu mel non sant yalla bo xamni nit ñepp dañuy ko ay bok wa yalla moom mi ngay sant boo koy sant il faut que déplacé wu doo ko sant kañ la ñu wax ni yàlla bu kañ la yàlla wax boo may sant déplacé wu leen kañ la ko yàlla wax ci alxuraan fan la yoon wax ni boo sant yàlla déplacé wu leen dem bërëb sàngam màkk boo gën a fort mais sant yàlla jarul déplacé wu dem màkk ñetteel bi yonent bi salaa sallam nee na du dagan nga takk tukki jóge Dakar dem Bawol jóge Dakar dem Kajoor jóge Dakar dem Saalum uniquement ngir benn jàkka lu dul ci ñetti jàkka yi. yow saa mu ne du dagan nga takk yow du dagan nga tukki di ziyaara jàkka lu dul ci ñetti jàkka yi laa tushaddu rihaal illa ila ihda thalathi masajid du dagan nit di tukki naan da dem ziyaara benn jàkka lu dul ñetti jàkka yi. mu ne masjidi haada moom yonente mu ne sama jàkk ji wa masjidal xaraam ak kaaba ga wa masjidul aqsa ak jàkk ba nekk Jérusalem non dafa yomb kii sëñ bi dafa yomb live yi xoolal bu la kiiw da ci kaw fee am na fooy bës rek fu ñu xaw a def x ni ah foofu rek boo ko bësee rek après dootoo gis live bi quoi dafa yomb quoi xoolal x yaa ngi gis ci kaw waaw foo ngay bës rek boo ko bësee rek après live bi. ok partagé leen ñu leeral dëgg yàlla ji. ban wax leen ma loolu ban cant la lii doom yi ñoo di ci business bu leen nah, di jural alal di ci am ay passeport diplomatique di leen nax di leen réeral di leen gëmloo ni seen mam lamu mu def kenn dafa ko falsifier histoire di la gëmloo ni sa maam dañoo tere jaamu yàlla moo tax ba ñu teree jaamu yàlla sa maam moo taxaw. Lol c'est faux tubaab bi musul tere kenn yalla c'est archi faux colon yi colon yi musuñu tere kenn jaamu c'est archi faux alpha lu preuve la ci indil ah, dama ci ah. indil preuve ah, non preuve la alpha xam nga preuve ñun ñi dëkk ndar kër commandant kër commandant bi Ndar euh, capitale Afrique occidentale française kër commandant bi nga xamé ni fa la fa la commandant wu de cercle bi dëkkoon ak Djumaaje grande mosquée bi nga xamé ni fa la paay jàkkoon sam papa nek dafa imam benn mbedd mi dox sen diggante mbedd mi matul 4 mètres tubaab bi biñuy tabax église bi même année lañu ñu la mosquée la grande mosquée la preuve architecture architecture jàkka ji ak ak ak église bi même architecte bi même architecture la bon tubaab bi mosul tere kenn jaamu yàlla. ok ñoom ñoo daan dem di collaborer tubaab bi di ko wax ni dafa am ñoo xam ne boo leen leen surveiller hmm. ñoom jihad bi am ci yeneen pays yi dañ ko indi fii Sénégal ñooñ nag ni nga mën def yow mënoo leen xam ñun ñoo jàng ñoom téere yi ñuy jàng da ngay ñëw ñu collaborer ak yow pour wan la ñi nekk suñu biir. nga xamee ni loolu li xew ci yeneen pays yi mën nañ ko indi fii Sénégal en fait collaboration diggante tubaab bi ak kii bi noonu la demee moo tax ñenn ñi sëriñ si dañ leen daan tubaab bi daf leen daan utiliser pour infiltrer milieu maraboutique bi. macha allah am na solo. barakallahu fiik barakallahu fiik comme confirmation la beneen bi mooy bu fekkee ñoom lu ñuy woote ne tubaab bi boobu tëree nit ñi yàlla sëriñ bi kese moom moom moo julli léegi dama leen laaj El temps yii ñoom limaamu ñu nga fa ñooñu ay alaaji Malick ay Ablaye Niass boog bàyyi ma limaamu sax benn affaire la mais ñooñu amoon nañu jàkk yu doon julle wala ñoom seen jàkk dafa tëjoon ñoom seeni daara daa tëjoon sëriñ bañ koy jàpp alaaji Malick amoon na daaraam di jàngale amoon na jàkkaam di julli Ablaye Niass amoon na daaraam amoon na jàkkaam di sëriñ bi mosuñu ko jàpp tëj jàkka yi bañ koy jàpp nekkul dañoo tëj jàkka yi jàpp sëriñ bi sëriñ bi tere wuñu kenn jaamu yàlla dokk dokk tëj déedéet sëriñ bi dafa amoon mbooloo tubaab bi amoon benn politique am ñu xam ne am na mbooloo ñu daal di koy tëj ci côté boo xam ne c'est c'est politique amul benn relation ak diine comme ku ñëw di taxaw di kàcce naan la sëriñ bi dañoo tere jaamu yàlla moom kese julli loolu du dëgg colon bi musul tere kenn jaamu yàlla loolu mënoo leen ko indi ci histoire wax leen ma fan la colon bi teye ay jàkka fan la colon bi tere nit ñi julli amul loolu amul fenn loolu mënoo leen ko indi nee leen ma sëriñ bi bañ koy jàpp dañoo tere woon jamono jooju dañoo tere woon nit ñi di julli déedéet sëriñ bi kenn mësu koo tere julli kenn mësu koo ba ci bato bi histoire bato bi sax ay dañ ko tere julli mu wàcc yooyu yëpp c'est faux loolu boobu yëfu mikki la loolu xam nga yëfu mikki la wala tere nga jàpp nga wàcc bato bi di julli bato bi daa taxaw xaar la nga julli pare mu yéegal wala te temps yi xamoon du noonu lay taxawee bato buy daw ci géej dañ koy commandé bato buy daw ci géej laa leen nappkat yi surtout ay jamono bato buy daw ci géej du jékki-jékki rek ju koy taxawal noonu mu taxaw déedéet bato buy daw si géej dafa am nuñ koy nuñ koy nuñ koy taxawalee du nit mooy wàcc bëgg a julli rek ñu ne ko wàccal déedéet xanaa bato bi da koo xaar wala bato bi daa jékki-jékki freiné xaar ko mu julli ba pare après mu yéegaat tubaab bi ñàkk noonu fay na taxawal bato bi xaar ko mu wàcc julli pare tubaab bi da koy yéegaatal. mais xanaa kay sëriñ bi warta ñàkk diine à sa point parce que booy tukki diine may na la nga wàññi say waxtu. moom il était obligé par force mu julli tisbaar si géej gi léegi bu fekkee si géej gi la jullee tisbaar d'accord tàkkusaan fan la ko jullee histoire yooyu moom mooy loolu jarul sax di attardé wu ñu dalal yeneen. histoire boobu histoire boobu même tuuti même tuuti histoire boobu lu lay wan ni histoire boobu ay nen la ci ñeenti mbir la benn. nee nañ ba muy wàcc di julli tisbaar la ñoom loolu la ñu wax tisbaar la wàcc julli léegi balaa muy julli tisbaar war a poser ay question ndax moom bato bi tubaab bi dafa taxaw xaar ko bato bi da daw mu war a julli tubaab bi taxaw xaar ko mu julli ba pare wala loolu benn question la ndax moom tubaab bi da koo xaar dafa taxawal bato bi parce que bato buy daw pour mu taxaw faaw ñu organiser ko parce que loolu day jël temps il faut que nous il faut il faut que jeter l'encre il faut que jeter l'encre voilà waaw pour mu taxaw temps lañ pour taxawal bato bi pour mom mu a julli loolu ben question deuxième question bato mom naka la def dafa naaw lal sa wala tuba tegal échelle mu wacc bu dem wallahu ala kulli shay'in qadir naam loolu beneen question la non comme que dañuy expliquer rek dañoo mun a expliquer wax xam nga man xam nga boo demee bay expliquer explication bi daa war a leer yow expliquer yi wàcc na ci géej bi tàllal la deram lal la deram julli sëgg sigi jër bi bu nga joxe mën nga tamit boole noonu naka la wàccee ndax dafa naaw ndax daa jékki-jékki seey rek nekkaat ci géej gi wala tubaab bi doo ko tegal échelle bu wàcc ci géej gi loolu deuxième question la troisième mooy sëriñ bi nga xam ni dem na ba mun a wàcc bato julli ci géej naka lay delluwaatee ci tubaab bi ci biir boto bi waa kooku mënul wër rëcc dam yoonam vraiment te moom résidence surveillée la nekkoon kay te résidence surveillée nga nekkoon yow am nga capacité xanaa nag bañ la tëjee waroon ngaa mën a naaw waroon ngaa mën a seey voilà yow dem nga ba am capacité rëcc bato bi rëcc ko bato bi manam tuba bi tënd leen dellu ci bato bi manam nga dox ak sa tank genn geej ci dem dellu sa bu delu delluwaat tax ci bato bi naka la def très bien sa bato bi mom taxawul diga xaar mu julli léegi alpha man dina la yob dila la Alpha man dinaa la yóbbu di la sànq ma ma la di la sànq. <laughs> ñeenteel question bi mooy ah tubaab bi de moo dëgër fit man man naka laay gisee benn waaye boo dama ko jàpp. voilà ci loolu laa bëggoon wax. <laughs> waa ji wàcc ci der. julli ci ndox bu julli ci ndox mi fekk joom takk suuf yow tubaab bi nga ko kidnappé. tiito ah, jamais damay damay damay dem bàyyi ko fa kay. yow tubaab tiito ragaloo. yow waa ji nga xam ne da ko jàpp waa ji daal di sàbbi der ci biir géej daal di dund sëgg si gi jéem takk suuf yow tubaab bi nga continuer dëgër bopp. te Alpha nee nañu nee nañu ki ñu ko booleeloon jigéen la nee nañ benn benn benn benn madame la te ak jigéen ni mu gaawee tiit ñoom nee nañu madame bi dafa ni dafa ni il sur la mer selon gars yi la ñu wax. naam. léegi question yi bu fekkee da ngeen di jaay da ngeen di mën a nettali rek mais yii yëpp a nettali. mais Alpha léegi wàllu fekk Alpha. waaw léegi xanaa sëñ bi moom dégguloon fekk de ah? waaw loolu beneen la loolu tam beneen bi mooy tamit yéen <laughs> da ngeen a suufeel seen sëriñ jàpp da ngeen koy yëkkati. ok wallaahi. islam dafa ne. dégguloon fekk de. kuy tukki mënul julli. mu essayé tisbaar la. takkusaan mu ngi ñëw islam nee na ko bu xaar ba takkusaan bu boole tisbaar ak islam new ko force da ngaa war a julli léegi man ñeenti question yi dama ngeen bàyyi ñeenti question la posé bu si njëkk mooy ba muy wàcc ci bato bi di julli ndax bato bi dafa gaare taxaw xaar ko te xam nañu bato balaa muy taxaw dañ koy préparer mu taxaw wala bato bi doon moom mu cëppee julli ba mu paree mu dab bato bi duggaat ci biir loolu benn question te yaakaar bu fekkee moom dafa rëcc bato bi bato bi da doon daw mu wàcc julli bato bi day continuer daw bato bi du ko xaar comme su boobaa moom aajowul muy delluwaat ci bato bi moom day delluwaat këram parce que julli la ci dox mën na dox ci kaw ndox dellu këram loolu benn la ñaareel bi mooy ñaareel question bi mooy ba muy wàcc ndax tubaab ñoo ko tegal échelle wala dafa naaw. wala dafa ko jek jek rek dal di sey bif ñu gis ko ci suufu bato bi kon naka la demee ñepp bi mooy eh, ah, Ismaïla sa micro Ismaïla wala yunus Ismaïla ñettel bi mooy tuba bi kat wax deug fa deug dem ñame yalla moom musuma ko gis bu fekke man da wala japp kidnappé la yow nga sadi sab der ci geej julli ma lay gis nga sëgg si sa jot ak suuf ma continuer di la kidnappé ma continuer di la kidnappé amul benn tubaab bu tiit tubaab yëpp kenn tiitul kenn raful ñu continuer jàppaat la yóbbu ñeenteelu question bi mooy ku mun cëppeelu julli ci géej rëccu tubaab yi julli ci géej sëgg sig sa jë takk suuf waa kooku munoo dellu sa kër dellu ci sa njaboot. dellu ci sa njaboot. ah. et puis Alpha Alpha nga dem foofu ñëw et puis ñu yóbbu la nga dem ñëw. quatorze ans quatorze ans quatorze ans lañ ko téye résidence surveillée bu ma kenn wax bu ma kenn wax bu ma kenn wax nag fadlullahi yuutihi man yashaa parce que fadlullah parce que da ngeen di yi bu ñuy nettali ak bi ngeen nettali dafa ne cëpp lal bi ngeen ne dafa ne cëpp nag war ngeen mën a nettali avant cëpp bi lan moo fa xew bon bon athlétique la won da Aha, ah nettali day leer nettali dafa war a dafa leer. c'est que alpha alpha geej alpha ñun ñi dekk ndar xam nañu geej ni muy mel gis nga geej geej même gal bo ci taxawé gal bo ci taxawé wallahi mën lo tok 30 secondes yo xam ne géej gi gal gi fay taxaw ben place gal gi day yëngu day yëngu en permanence gal la wax de gal gal gal ki mo li dem geej xam nañ ko ba mo li dem geej dañ lay laaj naan na ñun bu ñu demee nan la ñuy jullee parce que parfois nga kàbbar gaal gi yëngoo genre mbir yooyu dafa bari lu ñu koy laaj waaye léegi yow ñun ñuy gis géej ñi muy yëngoo kuñ la ni niw nit lan la lan la ki xanaa de benn jinne tàllal ka laafam loolu moom mën naa nekk jinne bi tàllal ka laafam mu taxaw ci kaw loolu moom mën naa nekk seen njabar yi moom mën nañ ko def. mais nañu wax loolu jinne bu ko tàllal laafam kay mu julli jinne bu ko tàllal laafam mu dellu kër. mu yóbbu ko dana ko mën këf yóbbu ko. yóbbu ko waaw yow nan ngay ñëwee mën def loolu ñu yóbbule la Île Mayombe ak ñëpp xam nañu Île Mayombe yooyu ni mu mel la nekk ci ay kii doo jël ni nga mënee julli ci géej gi doo mënee jëlaat sa der boobu lalaat ko ci géej gi mu yoral la ñëw ba senegal war na mën a yomb c'est que gis nga gars yi bu ñu këf xeelu nit ñi léegi nag ay questions yu simple la Alpha posé man tam ciy dolli ñaari question kese bi ci njëkk mooy Alpha dafay laaj ndax bi muy kii dafa ni cëpp wala déet man damay laaj donc léegi sëñ bi moom li mu jàngoon si fiq fu mu ko jaar léegi islamiquement dama bëgg ñu wax ci wàllu fiq fan la sëriñ bi teg bàyyi fi gaal gi man mii di waxanteeg yéen wax naa ko démb ci benn live nekk nañ si situation boo xamee ni julli correctement daf ñu tëwoon waaye jullee nañu nañu islam diggéen ñu def nekk nañ si as ruq su ndaw soo xamee ni dér ba salte woon na foofu xatoon na amuñu lu ñu jàppee waaye islaam am na foo xamee ni di nga julli xataa jàpp ci boppam sax boo ko mënul def di di nga di nga julli na na na yàlla soobee. macha allah léegi daal ah, nit ñi nañu yeewu daal. ñu bañ a ñu bañ a fàtte thème bi ñu ñu dalal ñii nii ci suuf xaw nañ fi yàgg. léegi daal léegi daal li ma leen di wax mooy li ma bëggoon proposé foofu mooy ku leen wax ni sëriñ bi dañoo tere nit ñi jaamu yàlla moom kese julli loolu ay fen na du dëkk serigne bañ avant ñu koy japp nit ñaangi doon julli bañ koy japp nit ñaangi julli bañ koy yobé nit ñaangi julli bobu delu sé da fekk nit ñi di julli lool mom lool amul fenn sen bi jappu ko ngir dañu téré bi julli momu julli lool ay katch la naam legi bismillah Yunus ku bëgg dugg ci gaay jëlal gaay inshallah ñu leral wa assalamu alaykum alaykum assalam wa rahmatullah

man damaa dofoon yaa ngi dégg. Euh, barki hmm. alxuraanu karim man yëkkati naa plus de quatre millions cinq cent jëndal ko oto sama sëriñ. Ah. màggal bu daan ñëw dama daan suñ kër rek lu mu dee dee dépense maanaam quatre jours màggale lu mu dee dee di nga fa perte un million cinq cent. billaahi na yàlla mais bi ma demee ba affaire yi xaw ma lu may nirool. sering bi ngeen di wax man dem naa fa am na benn année ba xam bi muy doog a toog am na benn année ba xam ne boo fa demee waa ji ma dugal ci kër sëñ bi pour ma gis yaaro xam nga ñaata ñaata laa fay waa ji waa ji ne ci buntu bi laa la wax de vingt cinq mille laa ko jox pour mu mën ma jox maanaam pour mu mën ma faciliter pour ma gis sëriñ bi nga xamante ni wiikul lay doon man ak moom. pour nga mën a dugg. ki nekk ci buntu bi rek waxuma la waxuma la sëriñ bi de moom rek moo nekk ci bi. setam la xaw doomam la xaw je ne sais pas jarbaatam. Ah. mais bi ma ñëwee ba toog ba xalaatal affaire yi laa xam ne man mii man damaa koŋ barki alxuraan karim billahi wallahi dama toog yëg sama bopp ci yu bare bare yoo xam ne ko daan te man ci dëkk boobu laa dëkk mais aw ma fa billahi wallahi. man li wax ni barki alxuraan karim yàlla rek laa ci jël seede mais barki alxuraan karim bi ma demee ba toog jàngataat ko laa xam ne man mii barki ci ay conneries kese ci laa nekk ci ci ay tontar yi ay ay yu kenn xamul ci laa nekk. yàlla moo la musal. billahi say say laa dama ko daan déglu chaque jour dama leen a seeraat ci ci kii bi quoi ci Facebook bi live bi par samedi nii xam nga ba parce que man jàng naa quoi jàng naa nii mën naa lire arabe donc mais dégguma arabe mën naa ko lire jàng na que man jàng naa al azar al azar laa nekkoon bu nekk ndaam foofu noonu jàng naa jàng naa presque cinq ans. Ah, exactement. Mm-hmm. mais bi ma demee ba toog concentré wu si seen live bi di di di gëstu. Mm-hmm. di julli maanaam di jéem a sellal quoi sama diggante ak sama borom. laa xam ne yu bare bare bare bare ba nit ñaa ngi koy demee perte temps la barke alxuraan karim billah wallahi man boo gisee ma yàgg ci laay bi yow man man man man man yaay sama sëriñ wala sëriñ Tuuba billah tama tama nëbbatuwuma man nëbbatuwuma man sama photo la bàyyi nii moo nekk nii nii mooy sama photo li may som photo mais yu ci bare bare bare ba dama ko teg suuf man maay fi ni mais yalla xam nañ la la wax yu ci bare bare bare sama diine yu ci bare bari yi ma xam lu ci bare bari ginaaw yalla yow ak murtala gay ak seigne Ousmane mom ak yunus yi na tax ma xam wor na yalla loolu tax ma doggi laay bi di leen déglu di leen déglu que ni que màggal bii passé bi ni ni licencié la da dama xam mën ma ñak maximum manam minimum possible la def minimum di nga dégg lu la nak parce que voilà moom kat lii wala lii xam nga dafa changé wala mais ba tey ok y' a pas de souci mais. minimum possible laa def yow na yàlla kontaan ci yow nit ñi dañuy mer yàlla yow lu ci des. non minimum minimum non dama xam ne xam nga xam boo deful toog rek toog rek croiser le bras defoo daal donc c' est un peu délicat mais. le minimum bi laa def déggoo ma la dama defaat beneen jàngat bu baree baree baree sama bopp. Mm-hmm. wóor na alxuraan kariim ndax man borom dëkk maanaam euh, doomu borom dëkk ba lañ ma tuddee sama tur moom moo ci nekk moom lañ ma tuddee. macha allah yàlla yàlla la yàlla man dinaa jël sa numéro boo ma mënee agrégat maanaam nga jël ma ma jël sa numéro parce que bëgg naa di jokkoo ak yow. ke allah la maa ngi lay maa ngi lay kii nii léegi léegi envoyé bi may waxee envoyé ma ci message ne ma. sama sama envoyé message bi nga gis après dinañ jokkoo incha allah. daa sama mbokk sama la quoi ke allah te benn. voilà jaajëf jaajëf bëgg sant yàlla. Yunus jaajëf. yow Zal yow Zal yàllaa la génnee ci tax bi. nañ ñaan yàlla defal jàmm ñun ñëpp. waaw. mais mais Zal xanaa yaa yónnee Younus veste bi costard bi xanaa yaa koy yónnee Younus. Younus nag yow yow costard bi yow après ñu wax ci quoi. attention de Younus Ibadou Fashion la attention de Younus. c'est pas n'importe non mais maa ko gën maa maa ko gën fashion laa wax man maa ko gën fashion yow tam. man Younus maa ko gën maa ko gën cofe. oh oh waaye bu nekk dugg ci loolu. oui ma. Younus Younus maa ko gën branché man maa ko gën branché. lu tax dugg ci loolu. Younus moom. il est compris xamna nu mu demee <laughs> mais kontaan naa baax baax wax deug fa yalla baax la ñaanal bu baax baax oustaz Alpha yàlla la sàmm la mboolem julit boo naa xuraan kari amiin amiin jërëjëf kontaan naa lool kontaan naa na la yàlla sàmm xol xol jere Zal dinañ ah, ok delloo ziar. alhamdulilah mel ni dégg naa ay question yoo yoo doon posé mm-hmm. waaye dafa mel ni mbir mi yow daa mel ni da nga ko gëstuwul ba noppi ndax dañ ciy def ay njuumte yu bari mm-hmm. sëñ bi sëñ bi ku la wax ni la dañ koo tere woon jaamu yàlla loolu moom moom waxul loolu déedéet. non waxkatu murid waxkatu murid la ñuy wax waxkatu murid bi muy wax da nga ko bind xës dara lay wax xës a mu ne yaa يا جملة قد سلسوا بدلالهم من لم يكن له ولد أو والد بل أخرجتموني أخرجتموني ناتخين بأنني عبد إلهي والمهيمن الشاهد صحيح وهم لو سنتوا بقى واخده دغلوما صح دغلوما موم دام نيكو جيت صح واجي ابن محمد مكو جيت li may arrangé wu leen kii moo tax mee ko mee ko balaa bu naan dañ ko bëgg kii ok arrangé wu ñu bisimilah waxal ñun waxuñu la loolu waaw léegi nit ki kay boo koy ci da nga dem direct ci moom ki nekk fee ci bi ki xam ne xamul sëñ bi di wax ay waxam doo ko jël di ko àtte sëñ bi di ko askan bi eh, déglu wala ñu ko ba sa micro ma wax déglu ma waaw waaw man mosuma la wax moo ne hmm. moom dañ ko tere dafa doon dañoo tere dañuy jaamu yàlla moo war ñu jàpp ko dama ne la hmm. loolu waaw mais mais mais est-ce que foofu la ñuy sukkandiku pour àddil la maanaam ki ketoo fee mu man waxuma la ku ci jàpp dama ne lu murit wax murit laa daaj gi loolu ne ñuy wax loolu wéerul maanaam li li wax ni moo gën a wér bul jaxase wax ji déglu ma fii rek wax wax lu ma wax li murit yi wax waaw ah, loolu la waaw na moom dama ñëw loolu la pour waxale ni la li gën a wér la mooy mooy ki waxal boppam moom moom sëriñ bi mhm. wax cause bi tax ñu génn ko dani mhm. axrajtu mu ni naati xiine bi ànd ni abdul ilahi maanaam li mhm. taxoon cause bi taxoon ñu génn ko ñeneen ñi ngi fi nekkoon ay alaaji maali ñu ngi foon ñeneen yor seen jàkkar julli ñëpp te génn wuñu leen voilà loolu la tax ma génn ko de ñi ngi ne ñu ngi ay daara di jàngal alxuraan ñii ñu ngi doon julli ñu def lépp ca ndar moom alaaj maali ma nga foon yor fa jàkkaam lépp mais cause cause bi taxoon maanaam dañoo tubaab dafa dafa teel seetlu ni. Mhm. ni muy ni muy ni mu doon yaree ni mu doon yaree taalibe yi. Mhm. ni mu doon yaree taalibe dafa ak seen gouvernement ni mel bis bu amee parce que ñoom ñu ngi fay impôt ñoom fayatuñ ko fayatuñ impôt li ñu war a fay impôt dañuy jël dem jox ko àddiyee tubaab dafa remarqué loolu mu nekk benn problème. ba noppi day seetlu ñoom niñ gëmee sëriñ bi dafa dafa dëggu ba ñoom buñ buñ buñ buñ buñ buñ bëggee dara ci ci si taalibe yi pour ñu am ko day xaw a jafe. yu mel noonu lañ constaté ba xam di ci nii bu ñu ko bàyyee fii influence bi mu am nii bu yokkoo ñun suñ gouvernement du dafa defee daanu. Ah, man de loolu laa man nee naa la si politique man nee jàpp bu ñu jàpp si politique. da ngay déglu Albert. Mhm. déglu sa waay yow yaay wala ñu ko la dama ne la. wax naa sama wax ko leer dama ne la sëñ bi lu tax ñu raison tax ñu jàpp ko c'est politique amul benn relation ak diine lii laa la wax mais waxatu murit ñoo naan seriñ bi ba ñu teree nit ñi jaamu yàlla moom kese moo julli waaw loolu moom waxee mbedd yooyu du ma ci baax man man nekk ci yoon bi tamit waxee mbedd yooyu man du ma ci baax man déglu ma yow da ngaa du mbedd de non non du waxu mbedd bas wax na ko hmm. euh, Gana Messere wax na ko Bichri wax na ko Saliou hmm. Samb wax na ko te seen hmm. plateau télé yi bu ñu soxlaa wax kat murit yi délégation murit yi kooku ñooñu la ñuy yónni non télé télé yi ñoom ko animé ku leen animé lañ soxla ñoom ñoom ñu yor xam-xam ñu soxla soxla télé bi moom télé bi day jaay produit am télé télé day jaay produit am day xool kii waxtaan waxtaan boo xamante ni ni dina animé yooyu ñoom ñoom loolu lañ bëgg. bi mu xaadaas mais nit man àdduna si su ko waxoon man àdduna si su ko te ma gis benn sëriñ bi. da ngay nit ñu wax. ak bisimilah. non da yow. Hmm. ñoom dañuy ñëw di wax ay wax yi nga xam ne si ni tey ñu fay invité mooy loolu mais ñoom gànna ñoom bisiri ak ñoom bas parfois dañuy wax yi nga xam ne si ni tey ci bindu sëriñ bi lay jóge hmm. mbindu sëriñ bi waaw comme lan. ah bari na. bi ci jógee comme lan maanaam jógee ji comme la comprendre. comme ça tey. dañu hmm. wax ne ne bi tey kataballahu yooyu ngay dégg tey ñoom dégg nga si bisir ñu koy wax te yooyu la hmm. sëñ bi si ay téeram waaw ah léegi nag ñoom bas wala ñoom ñoom bisir yi bu ñu demee si télé yi ñoom nekkul ne tey dañu sosol sëriñ bi wala dañu faa topp seen poche déedéet hmm. dañuy indi sëriñ bi wax mais eh, wax ji parce que dañoo nekk ay ay ay porte de voix mooy ñoom ñoom dañoo nekk genre yi nga xam ne siñ tey dañoo mën wax aha bokk ñu ñi nga xam ne si léegi loolu ma leeral la fi leen ma leeral la fi leen

di leen woo ci sunna waaw léegi est-ce bu daan yónnee buur yi da leen jàpp xas leen ba noppi soog leen a woo ci diine. xas ana xas. fii ana xas foo gisee xas fii. a ah, ah, li nga dégg bu xas lu mu doon. ana xas ba di wax ba benn xas wax ba benn xas buñ fi wax. dama ni sànq fii dégg naa fi waaj na athlète la woon naan sëriñ bi athlète la woon ak yooyu xeet yooyu loolu du xas. kan moo wax loolu. am na ko ko wax fii ci live bi ma dégg. maanaam naan ba mu tëb ci géej gi bi ma ci géej dem danga ne hmm? dafa la indi ne la màggal ana preuve am man lii mooy sa hmm. perception ana preuve ni ci lislaamu bokk na doon hmm. bi est-ce que daan na ah. laaj nga la waaw daan na mooy da nga naa sant yàlla lan mooy preuve bi wane ne ci ci jaamu yàlla bokk sant yàlla waxuma sant yàlla de man màggal dem dajaloo ah, tur bi olof mooy olof mooy wax màggal olof moo wax màggal mais sëñ bi muy bind ok sukuru la wax ok léegi cant googu cant googu fan la hmm. islam validé ab cant boo xam ne nit ñi dañuy déplacé wu dem benn bërëb loolu fan la islam validé islam benn moo wax ajamaatu raxma aha ajamaatu moo ko wax waaw benn sëriñ bi muy sosloo moom sosu fi dajaloo pour ñu bi mi ngi koy def ajamaatu raxma moo ko wax di diglu ma rek diglu ma yéen salaasala moo ko wax xaaral xaaral da nga islam moo ne aljamaatu raxma l'islam yéen salaasala moo ko wax yonte moo ne jamaatu ci ban ci do xuma lol de al jamaatu rahma mbolo yermande la lol ban xam wal firqatu min hmm? al jamaatu rahma mbolo yermande la ibnu muhammad ibnu muhammad sam ko eh, wal firqatu min al jamaatu waccal waccal ibnu muhammad yunus allo eh, da nga ne man dama la laaj hmm. ana preuve jógee waaw moom laay leer danga may déglu ma leeral la dem benn dëkk di dajaloo di sant yàlla preuve sant yàlla boobu léegi ma leeral la yàlla boobu forme sant yàlla boobu waaw preuve am ci alxuraan sunna waaw léegi danga ma leeral la ko danga may ma leeral nga ne ma islam moo ne yonente bi moo ne aljamaa mbooloo rahma yërmande waaw léegi waaw ma rek lool détail la ba xam fen la ko yénte waaw naam yow xam nga ne yénte ko wax yow déedéet déedéet. déedéet boo boo waxee a daa wax déet bu dee da nga ko ci loolu ba xam yéen fii la wax nangam naam léegi mais même bu dee la pour sant yàlla. Hmm. ñu dajaloo de. moom moo jël gàttam daal ko rey daal di sant yàlla kenn ku nekk fa mu dëkk la ko daan defee. loolu dem na ba sëriñ bi jóge fi ba sëñ ba fi sëñ sëñ Modou Moustapha tamit nekk fi ba jóge fi hmm. kenn daawul daje Tuubaa def sëñ Fallou bi fi ñëwee ci xalifam ci xilaafam ngir sàmm loolu neen ngir sàmm loolu dajaloo gi nit ñi tas kenn ku nekk nekk dëkkam di ko def bu yàggee mbir mën naa dem ba sant yàlla gu daal di raaf nit ñi daal di koy bàyyi nekk seen yitte léegi nañ dajaloo ci benn bërëb suñ fàllu moo fi indi loolu nañ dajaloo nañ ok ok léegi baax léegi léegi nee sant bi du bërëb bërëb bi après la ñëw léegi fan yàlla waxee ni fan la hmm. saxee ci lislaam ñëpp ànd di santalee yàlla diw loolu fan la sax ci lislaam léeg-léeg loolu ñu jagleel benn bis boo xam ne ñëpp dañuy ànd di santalee yàlla diw. dama dama la waa ki xam ne moom yàlla da ko defal ay xéewal mu yëg ni moom daal lott sant ko yàlla moom. mu ni mu woon ni amul droit léegi ni leen santale ma yàlla amul droit. loolu loolu amul loolu amul ci diine. amul droit santale yow bu amee sa xew nii ngay ngénte amul droit doo woon nit ñi ne ñëw leen nit ñi duñ ñëw. loolu ngénte la ngénte la. ah waaw ah, li ngénte la ak lan sa xew la. Ah, ngénte la yeneen salaasalaam moo digle ngénte ngénte sunna la sa mbokk mbokk waxuma jëmi ngénte de waxuma jëmi ngénte yow nit ñi ngay woo pour ñu ñëw la mënoo ngénte yow kese nga doon sëgal ngay sa xarit tudd solo ngénte du cant sunna ngénte beneen mbir la sunna ngénte sunna si sunna si mooy nga rey xar laa Yunus bu fekkee du dëgg da ngay copier micro ma wax ma ñu wax ba pare quoi moo gën muy wax di jokkatle wax ji di jaxasoo ah, xam nga yow dem nga ci ngénte ngénte daa am dalil ci alquran ak sunna ngénte hmm. ak bolol dara ak cant yàlla ngénte jox hmm. ak yeneen waaw loolu mooy sunna si waaw. waaw déglu ma waaw mais dama ne. Hmm. am nit boo xam ne at ba at am na benn bis buy ñëw. Hmm. ñëpp dañoo war a ànd wala mbooloo moomu ñu topp ñëpp ànd di ko cantale yàlla bis boobu. loolu fan waaw waaw ah, léegi mën naa wax léegi. waaw. waa jëmmi jëmmi sànq dañuy wax ngénte ni sunna la yéen salaasa moo digle ñu bu mu ne tuddoo juddoo ñu rendil ko xar. loolu loolu moom mooy sunna si waaye jëmi woo nit ñi ñu ñëw est-ce que sunna la si sunna si la bokk. si sunna la kay. woo nit ñi ñu ñëw. loolu ci ah. sunna si la bokk. loolu sax na waaw. ah ah fan fu mu sax. loolu sax na ci sunna sax na ci saxaaba yi. fu mu sax fu mu sax wax ma ko fan fu mu sax. sax na ci saxaaba yi. fan fan la sax fan. yonente bi sallallahu alayhi wa sallam benn ah, saxaaba. waa déglu ma déglu ma déglu ma da ngay yëpp. ñoo na ci musnad imam Ahmad ak musannaf ibnu abi Shayba. Mm. benn saxaaba boo xamante ne dafa waroon a ngénte yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daal di koy dugal mu rend ñaari kuy mu woo saxaaba saxaa mm. saxaaba yi ñëw ñu lekk ci res bi loolu sax na ci xadis mm. dama ne jëmmi dajaloo woo nit ñi ñëw loolu aada la ci rek aada la waaye du ci si dama ne am na du aada dama ne loolu sax na dama laaj ndax sax na ma ne loolu sax na léegi man sama question mooy fal na sutee ci sunna dajale nit ñi ne kaay leen santale yàlla diw lool fan la sax léegi loolu faaw da ngay dem ba ci sunna moom yéen léegi maanaam néewul woon kaay leen sant ko defee léegi léegi après musul wax kaay leen ngeen dajaloo benn bis ngeen cantalee ma yàlla te yonte moo a foor ñëpp moom sëñ bi waxul ni de daneen kaay leen sant li ma yàlla fi loolu moom dajalewuñ ci kaay leen kaay leen santalee ma yàlla boobu ci boppa laa la wax loolu dafa amul preuve woo nit ñi léegi màggal bi xam nga ni micro micro am ah, na yow xam nga ni destination bi Touba la n'est-ce pas. destination bi ci suur na defal naa ko ay cant la ku nekk fi toog fan la saxee ci sunna ni ci diine islam ay nit bu ñuy sant dañuy déplacé wu dem benn dëkk loolu fan la saxee. léegi jëmmi jëmmi déplacé dem ji fi mu doon du ci sart de ku toogoon fii fi nga. toog sa dëkk loolu am na wala amul. lan lan si lan lan. dañ ci woote wala ci woote kaay leen kaay ngeen màggal si am na wala amul. waaw ku am sa xew ke boo neex nga woote ji. ok léegi dama loolu fan la saxee kaay leen ngeen ñu sant diw kaay leen ci dëkk sàngam dem benn bërëb di fa sante diw di fa sant la yàlla loolu fan sax. di sant yàlla loolu benn bërëb yéen léegi woot woot nit ñi moom bu dee jëmi woo nit ñi kon kon hmm. ñu li ñuy def lépp bidaa la kon moom parce que li ñuy léegi woode non lii du woode e lii du woo nu mu doon sant yàlla boo xam ne ay mbooloo ñooy loo dem benn dëkk waaw at bu nekk ñu jagleel ko benn bis loolu laa a fan la sax ci diinal islam jëmi jëmi woote bi laa wax pour nit ñi ñëw wax naa la loolu bàyyil woote bi bàyyil ma woote bi waaw jëm ñi dajaloo benn dëkk di fa sant yàlla waaw woote bi kay moo war a dajaloo bi waa léegi loolu fan la sax ci sunna ci alquran ak sunna boo mm, mm, mm, loolu boo ko daajee laa teg fële maanaam li nga daaj ci kon ci kon jëmmi ngénte jëmmi céet woote gi ñëwoo nit ñi céet dafa am dalil yonte salaa salaam ba ci sa groupe bi nga def ni yow yow ba sa groupe bi nga def ni invité nit ñi ñëw ñu ñëw dalil laa am na dalil waaw ibn awfu ñëw ne ko dafa war a takk mu ne ko awlim walaw bi shaat mhm. mu ne ko na nga rendi na nga ceetal doonte boobu bis la nga woo nit ñi mhm. kon loolu léegi li sunna mooy nit bu daan céetal danaan dañ faral def jël jël ay kii tëgg tëgg bañ man indi naa la dalil soo la dalil mhm. naa la dalil ceet woo nit ñi indi dalil dama ne dalil mooy lan fan la sunna saxee sant yàlla boo xam ne dañuy dem dajalo ben dekk man li mo sama laaj leg leg yow yow yow yow sunna da nga xam lepp man laaj won lool saa man laaj won lol de dama bi mu xaadaas dañ la laaj ay preuve bu ne laaj ay preuve da ngay ñew di tontu ci preuve yi ñu lay laaj mais ay sunna da nga xam lepp ak ay li da nga pek lepp ak indi wuñu fi sen sen sen magal gi ngeen di def waaw na laaj preuve tay fan la ñewé ci alquran ak sunna fu yalla di waxe wala sallallahu alayhi wasallam jangal ñu tay ji tay kenn buy sant yalla day wo ay nit dajala len pour ñu sant lu ko ak yalla par ñu jappal ko ben ben bëss bëss bo daal dem sé ci ci ané ko def. waaw loolu la la laaj ñu la. yeen iya, iya. iya, di yéen tamit loo gën a xew ci àdduna lepp doo ko waxoon. ah yéen tamit loo gën xew ci àdduna lépp doo ko wax. lu dagan ak lu arab yu wax na ko. ah lu dagan ak lu arab yu wax na ko. waaw li dagan ak li arab wax nga ko waaw lo leer na. lo leer na. jëmm yi sant yàlla da koy wax mais forme bi dañ ko defee forme bi dañ ko defee yëpp est-ce que est dee sant yàlla di leen sante nii wala daal nga tënk xëy da bu doon ñu la sama wax dafa leer na si yow tontoo ma diine ah, tontoo ma tontoo ma jël ma wax yéen tënk ko maanaam tënkul tënkul nit ñi loolu fayal micro tuuti ma leeral si ah waaw di nga a fay yàlla dafa ne xaatu indi len sen preuve bu de li ngeen di def deug la ci yeen am ngeen ci lay indi len sen preuve yow mi saxal magal yow ma laaj la la sant la mané fal fan la islam diglee sant yalla bo xamné at bu nek dañ koy jaglél ben bis jaglél ko ben beurep di fa tukki di fa dem di sant yalla lolou fal la sax ci diina islam li ma sax est-ce que nga jox dama ni jëmmi jëmmi jëmmi sant gi bam saxé rek ci lislaam jëmmi sant jëmmi sant loolu moom la l'islam validé mais form bi ni ñu koy defee l'islam loolu tënku ci kenn ba xam da ngeen dajal waa da nga war a wér yow est-ce que yow dafa tënk nit ñi dafa tënk nit ñi bu leen di jullil mais ah. forme boo ko changé boo jiitalee sujjoot ci rukkoo ah. baaxul waaw dafa am jaam yàlla yoom yàlla ko wutal forme daa ko ci tënk laa boo ko changé baaxul mais jaam yàlla daa am hmm? forme forme bi mooy asalaam jàngale sant yàlla dafa am forme forme bi mooy nag jàngale xamuñu ci wu dem ci beneen dëkk wa léegi ñun ñoo ñun ñoo choisir déplacé wu léegi ñun ñoo choisir ñun xool fa. ana preuve léegi léegi ah. ana preuve léegi ana preuve bi. yéenay tànn quoi yéenay tànn quoi. léegi kon yéen da ngeen bëgg a tënk yàlla ji ci ay ay ay texte ak daal lu génn texte yi. léegi léegi léegi wàcce wàcce amul ah, waaw dina dina ma wàcc kenn ndax arrangé ni leen may wax nii arrangé wu leen. naam. waaw ah, Cheikh Alpha maa ngi ziar. delloo ziar waaw man de euh, dama lay suivre euh, tout le temps. may rafetlu tamit say intervention macha allah. waaw man nag euh, ndaw laa bon mën naa ne sax sama xam-xam demeewul noonu ndax ku toog ak ku jàkkaarloo ak yéen ci xam-xam moom nga xamante ni bon xamul dara te lu ma jàng si yéen dafa bëri lool macha allah. toog toog na ak benn mag nag ñu doon waxtaan ci mbirum sëñ bi mu ne sëñ bi dafa wax ñetti wax yi mu ne samay bind yi wala samay kàddu yi ci contexte laa ko teg muy benn ñaareel bi mooy loo xamante ne bu may wax borom xel yi lay waxal ñetteel bi ñetteel ñetteel sa micro la for fallu fallu broderie tëjal sa micro s'il te plaît tëjal sa micro su boo ubbee sa micro gars yi duñu dégg ñëpp ko buñ sax dafay changer quoi fo problème dañ seen micro wa mu ne dañ seen micro wala ñoom ñu wàcc waaw mais ñoom dafay chargé quoi dugaguñu sax moo tax ok non bismillah waaw dama ni eh, benn kilifa laa doon waxtaanal ci mbirum sëñ bi mhm. am wax yu bari yoo xamante man mi eh, sama jàng soriwul noonu mais dama ko dajji mhm ndax eh, buma la joxe misal rek ci buñuy naan eh, jëbbal la sama bop aduna ak àllaaxira wa legi eh, ci misal bu gatt ko jëbbal sa bop aduna mom kon da nga wara teud sa neeg mom mu liggéeyal la di ko indil mu liggéeyal sa njabot di ko indi wayju teral sa bop teral sa njabot jeulat yobul ko serigne serigne bi mënu la defal dara ci aduna bi ni te fi mo gëna zahiré zaayire nga soxla ku la mënul xettali ci zahir bii ni mbaa baatin ba dina fa mën a taxaw am na solo autoroute bi nii nii nii fi nekk nii rek sëñ bi buñ fay bu la fay rombe voiture tente la fay rombe te bu dee guddi boo ko tàllalee loxo sax day day day tiit ba di da lay daw donte da nekk si njàqare donc xam nga ni am na yoo xamante ni daal pour man euh, amul dalil ni ñooy wax wax yu yu amul waxal mooy euh, koo xamante ni xam nga sëñ bi bu demee bu tuddee boppam ahmadul xadim mooy euh, jaamu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jaamu yàlla wala jaamu non euh, bon sama olof moo leeru xam naa man maa jum si kàddu bi jaamu yàlla parce que sëñ bi kenn du ko sosal ndax moom moom waxam dafa leer ñun ñi ñun ñu di jottali ñun la suñu wax leerul ah, dëgg la non ñu koy jottali yonent bi fu mu teg tànkam lay teg sama tànk man may serviteur yonent bi loolu la wax kon ku dem ba wax loolu moom da nga bi euh, moom pour man euh, sëñ bi ci sama xalaat bu gàtt boog sëñ bi waxul ni dajaloo leen ngeen màggal waxul ni kenn tamit màggal leen ma sama bés bi man dama jàpp ni sëñ bi dafa ni sama njaboot ngeen màggal leen ma bés bi ndax dama dama dama tukki si jàmm ak salaam nattu addun nu mu bëri bëri dellu si naa jàmm ak salaam maanaam ñu ñu ñu célébrer jour boobu noonu féete ko entre nous genre retrouvaille man contexte boobu laa ko jëlee. léegi nag kanta waa kanta quant à dajaloo Touba dem fa benn mag nee na ma c'est eh, c'est un politique quoi parce que jamono jooju sañ Fall oo nit ñi pour ñu dajaloo Touba léegi fond bi bu duggee comme ça ñu mën a defaraat jàkka ji ak leeral tuuba ok xaw ma ba xam fàttali la jërëjëf. yàlla yàlla fay man maa ñëw. waa kii di rafetlu live bu baax mais man li ma xaw a jaaxal mooy comme histoire géej gi nga doon nettali sànq mhm. ñun ay temps yi yàgg niñ ko niñ ko niñ ko expliquer niñ ñu koy expliqué ñun loolu lañ gëmoon mais histoire dañ ko war a wax ni mu demee suñ ko waxoon ni mu demee rek problème du am mais ma dama seetlu ne ñi nekk ci télé bi li ñuy wax daal man daal gëwuma ko ay nag bi mbëkk ko ay dugal ko ci fuur rek yooyu daal yëpp histoire yooyu daal ma dama seetlu ne bi jamono di dox loolu daal si foo mën daal gëwuma ko ay wàcc julli ci géej géej yooyu yëpp mën daal si foo yooyu daal man gëwuma ko ay la rek pour man léegi léegi beneen bi mooy woote màggal gi man woote màggal gi sax mën na bañ a nekk problème ci man la mooy sama problème mooy ñi toog ci palaato yi yëpp ba ci rek dégg naa am ku naan sëñ bi mooy yàlla léegi sëñ bi moom bu fekkee moom da ko woote woon pour ñu santale ko yàlla ñoom ñu ngi ko yàq nañ sant bi yàlla bi parce que ñu jël sëñ bi teg ko palaasu yàlla kon léegi rek loolu le soo ci xoolee màggal gi day arab loolu rek soo ci xoolee dañuy yàq même bu neenu yiw da cee am yàq nañ yiw yépp parce que ñi jël sëñ bi mooy yàlla mooy yàlla mooy yàlla baat bu gën a garaaw loolu gisuma ko ci àdduna diw mooy yàlla ñu ngi koy jël mooy yàlla jël ko teg ko place yàlla même bu fekkoon ne dajale nit ñu ñëw nga jox leen ñu lekk ñu naan xëy na loolu baax na mais ñu ngi koy yàq parce que dañuy toog ci seen plateau yi naan sëñ bi mooy yàlla mu def mooy moo du yonenti paase na sax yonenti mooy yàlla moom paase na sax yonenti man daal en tout cas daal bu fekkoon sëñ bi daal woote màggal gi daf ko woote pour ñu santale ko yàlla nangu nañ sëñ bi ku baax la ñëpp nangul nañ ko mais daal yàq nañ ko daal parce que daal man daal lu may gis ci plateau daal loolu mën na tukkal sax se àdduna toog naan doomu aadama nga del ko naan mooy yàlla wax dëgg yàlla ba ba jëbaluwoo ci ci ci ci xali xalifet bu xalif bi parce que xalif bi léegi dafa am xalif de xam nga man dafa am wax ji fi daan wax dafa wax ji wala fi daan wax naan naan naan naan naan yilimaan yëpp seen yilimaan mi ngi yem ci buntu néeg yi xam nga nag xëy na alpha imam boobu dugg ci moom wala wala Yunus ñi ñëpp bu duggee ci biir néeg yéen ay soxna yi ñooy commandant yi léegi nag dama ragal nag loolu moo comme soxna si comme soxnaan si mooy commandante bi nag léegi daf leen wan ni yéen diw mooy seen xalif mais man maay xalifam te ndaw si wane na kat ci yàlla la jébbal ko man moom ci yàlla laa jébbal rek xam naa ne doo ko def moo tax li leer ba leer moy léegi xam nañu léegi xalif bi kan mooy xalifaam waaw kay léegi rek man man daa foofu laa terminé li bëgg wax daal mooy mooy histoire dañ ko nettali ni mu te nit ñi dem jang dem gëstu histoire parce que bala ngaa toog da nga dem gëstu waaw gëstu histoire dafa am solo man daal loolu laa doon wax dañ bàyyi seen bokkaale bu métti biñ nekk maa ngi leen di daal yéen ñëpp. Baba me hace şey Assalamu alaikum. Alaikum salam. Yunus, Ismail, Alfa Bab, Mali Niziyar de. ñu ngi lay delloo ziar incha allah. waaw si jàmm baax a alhamdulilah. waaw ñu ngi lay déglu bisimilah yow la ñuy déglu. waaw. yow la ñuy déglu sëñ bi. Kër Sër may daw waaw maa ngi jégalu maa ngi leen di ziar baax yéen si jàmm baax. sant yàlla. waaw déglu naa seen waxtaan bu baax a baax boobu léegi maa ngi maa ngi bàyyi xel baax. dafay daw quoi. ok maa ngi jégalu connexion mooy daw quoi. léegi dafa atal demande nga yegg. mais Alpha Ba. Alpha. maanaam am na waaju dugg léegi euh, di leen leeral si affaire yu màggal. wala ay señ bi lim julli ci géej gi maanaam di len expliquer yeñ yi yeñ yi manam di tok di expliquer yeñ yi señ bi lim jaar ay ñu def ci lim julli ci géej gi maanaam loolu nekk di leen koy wax yeen sax yak temps la ndax parce que xam lu mo tax hmm. señ bi li am am na ba pare barik alquran ko forcé wuñu kenn kenn kenn pour mu gëm ko yaay dé forcé wuñu kenn pour mu gëm ci señ Bamba julli ci géej gi wala forcé wuñu kenn pour mu gëm mais manam la bëgg xam li am mom amna ba pare mom lan mo am. yi lan mo am manam bëgg nga xamanté si ni ñun bëgg na ko Serigne Bamba. isa comprendre lool amna ba pare Serigne Bamba lim julli ci geej gi lool julli na ko pare Manam, duñ forcer kenn pour nga gëm ko par la force dañ ko. gën ñëpp dëgg maa magalé yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam mo gën ñëpp. yonent bi julliwul ci géej. ba mu xee yonent bi julliwul ci géej. ba mu xee suba ba mu xee suba. Bamba Bamba Bamba ana preuve julli ci géej gi. ah ana preuve julli ci géej gi. dëgg dëgg dëgg dëgg moo wax la. sa appartement ñu foofu yonent bi yonent bi xam ne moo gën ñëpp ba mu demee kaw asamaan ñëwaat ba mu xëy suba bi mu ko waxee. Hmm. am na ñu nga xam ne doo ay jullit sax doonoo weddiwaat parce que dañu loolu mënul nekk. dan ko waron tengal nan nga yëkkati sa ñaari tànk mo yëkkati sa ñaari tank naa da nga dem ak kaw asamaan déet non ma àggale rek alfa yunus fayal micro fayal alfa déglu ma àggale damay déglu damay déglu yunus ma li mo tax bëgguma ngay taal parce que damay bàyyi gars di wax rek ma lay dégg wax la yonente bi amul benn julit bu musa wedd yonente bi ba mu ñëwee dama riñaan dem kaw asamaan kooku wedd benn julit musu ko wedd te bi rañanam dew ko dem kaw asaman alquran bo ko wax hadith bo ko wax lol dañ ci am preuve sa micro sa micro day écho yonente salaa sallam dem bu dem kaw asaman amul benn julit bu ko weddi yo da nga ne bu mu ñewate amna ay eh, julit sax ko weddi lol amul wor wor benn julit weddi wu yonente bu mu ñe dama rañan kaw asaman amna ñu nekk ay jullit sax jour boobu doonoo doonoo weede ni ki niki ki ni wérul wérul la ndox wérul. non non loolu yëfar yee ko wax. benn jullit weddiwu ko. loolu du dëgg yow loolu loolu yëfar yee wax du jullit ñi. ñaareel bu moy yonente bi rañaan bu mu rañaan kaw asman da am preuve ci alquran am preuve ci hadith preuve ci alquran subhaana allazi asra bi abdihi laylan min almasjid alxaram ila almasjid alaqsa alladi barakna xawlahu loolu mooy preuve. xadis Buxaari dëgg la xadis Buxaari yonent salaa moo expliqué la mu rañaanee kaw asamaan fayal fayal sooy fayal sa kii yonent salaa moo expliqué ba mu demee première asamaan la mu gis deuxième asamaan troisième asamaan ba mu gisee safara ak aljana yonent bi moo ko expliqué mu ngi ci téere yi comme loolu am nañ ci preuve léegi sëñ bi daa julli ci géej bi ana preuve bi ak magal luy wane ne diina la ana preuve bi loolu lay soxla ko lañ ko bayam dem tëdd parce que ki mo du tont hmm. ah Ahma Ahma TV bismillah salaamaaleykum waaleykum salaam eh, ñu ngi leen di siyaar bu baax ñu delloo ziar alhamdulilah. waaw yéen a ngi ci jàmm. sant nag euh, waxtaan wi ma bëgg waxtaan ak yéen dama bëgg lépp loo xam ne ngeen ko ngeen indil hadis wala ngeen indil ma ci alquranul karim loo xam ne dàq na ko muy tey comme sëñ Alpha su ma la laajoon ku rey nit lu ci yàlla wax lan nga may wax te tay ko. waaw ah, yow ñun da laaj preuve wala yaa ñu laaj preuve yow. ma dama leen dama damaa bëgg indil indil ay laaj yu wér ci màggal Tuuba mi ci alxuraan. Ah, soxla question bi mooy lan mooy. non màggal kii lim wax dëgg la. am na mm-hmm. droit lim lim bëggal. Oh, xam nga xam nga dama dama. micro wala xam nga. amul wax di xam nga. sa boo fi waxaatee ñu wàccee xam nga comme comme comme yàlla moo ñu wax ne suñ suñ demee ba euh, kii déggootuñ. waaw nah, motax dama la bëgg tontu wala bok ma leeral la manam bu fekkee ne li ma lay laaj leeral nga mako ma indi la ay dalil ci alxuraanul karim ci magal bu wër lo xam kuko ku weddi ab yéfer ga te muy alxuraan léegi dama ne la ko koo ray nga ni rey nga nit te tay ko mhm. lan moy sa atté ci alxuraan pour nga tontu ma ma mëna jaar fofu leeral la jàng aay boobu. xaar xaar xaar mm-hmm. yu sax. Mm-hmm. moom itam mu tax a daal. loolu si njëkk mooy. fa jazaa'u jahannam. Mm-hmm. fekk laay benn ah, thème. dégg nga ma ne na ma sax de maa ngi ñëw de. dégg nga dégg nga da nga ñëw ñu am benn thème. nga ñëw nga teg fële thème bi ñëw naa da ngay posé question. question Kalau lu warani magga kiwaaki diina ji la ok oke dina la tontu dina tontu sa li nga laaj après yang jàng tontu ma ci question yàlla mu ne ku ray bakkan wa yaqtulu mu'minan muta'ammidan fa jazaa'uhu ki hmm. nga xam hmm. ne na bakkan te tey ko fa allah te rëbb na allah allah ñëwal ci question. Mhm. may ma xam nga xam nga bu ma ne laa. Yunus wàcce ka bi la. dafa leen de du ngeen ma bàyyi wa waa dégg leen ma wax xam-xam bu leen ma wàcc bu leen ma wàcc dimbali bu leen ma wàcc ma wax ci xam-xam maa gale. déglu non déglu ma déglu ma Younus nañ ko ba mu ñëw ah Younus foo leen fekk foo leen fekk moom jotaay waaw ko si kaw sànq muy muy lii de mais jëluma ko asalaamaaleykum allo asalaamaaleykum allo. waaw wala dafa am keneen kuy wax. yu yu Yunus Yunus jëlal Lamine Yunus jëlal Lamine Lamine Lamine. waaw naa ko jël mais affaire fu bëri quoi fu nekk ay parce que ay salaat yooyu noonu. am jàmm. ñu sant yàlla Yunus kër moo war a wax waaju ci kaw fële. Cheikh Alim ok waaw yéen a am jàmm ah. Seyda Alpha Seyda Alpha maa ngi leen di ziyaare yéen ñëpp li ngeen uh, li ngeen débat bi ngeen di wax déglu nañ ko te ñu ngi koy suivre bu baax léegi man dama bëgg a xam xam nga bëri na ñoo xam ne ñu ngi si yooni Serigne Touba di wax loo xam ne Serigne bi bindut ko di wax loo xam ne Serigne bi defu ko loolu wér na parce xam nga nit bu taxawee ne. Serigne Touba moy yalla lolou yalla nañu yalla musal ci wax joju yalla buñ ko waxat sax ñun lolou nekul lu wér parce que alquran deugal nako ko wallahu ahad allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad juru ken ken juru ko te nguuram nguuram ba amul fa ben ko xamne nawle la ko xamne da fay tollo ngum amut lolou mustahil la man ta nek legi nak lepp lo xamne xam-xam la lepp lo xamne xam-xam la nga koy waxtane nga koy waxtane maanaam dafa war a ànd ak ëdëb dafa war a am yar dafa war a ànd ak yar muy si côté ñi lay ni laaj ak si côté yéen ñi nga xam ne yéen yéenay wax ak nit ñi képp ku taxaw naan sëñ Touba lii la dugg na fii nangam yàlla loolu waxi caaxaan la loolu sax ñi nga xam ne ñooy dugg si live bi sax di ko laajte naan ay lii julli si géej gaak ay ay ay sëñ Touba yàlla la yooyu nit sa wur ku nit ku am xel sax warta laaj ci loolu waaye nag Sénégal li ak sar li ëpp si ñoom maanaam dañoo jàngul parce que dañuy judd tey ñu dugal leen si fi caaxaan ñi nekk duñ jàng xamuñ seen diina mais nag li ngeen di nekk di débat nii bu la si nit bu leen si nit ooyee di wax ak yéen wax leen ak moom si dal ak teggin ak yar muy côté ñi woote ak yen ñi nga xam ne yéenay wax ak ñoom mm-hmm. waaye sëñ Tuubaa ku taxaw na yàlla la wala nangam loolu waxi caaxaan la waxi dof la julli si geej gi tamit ab même temps tamit ma ngi deg ngeen koy wax julli si geej go gaay di wax man mi lirna ay téré Serigne Touba waya si lu ñun luñ gëstu ñun ñun luñ gëstu Serigne bi ba joggé ci geej gi ba ba nim ko waxut ak ma Samba wala waxut ak ma Demba ñun lolu ñun ci jangal la gis nañ ko mhm. mais nak Euh, comme ay côté julli na si géej gi yooyu yëpp am na suwaal dafa am ay laaj parce que ku taxaw na yow diw julli na si géej gi wax dëgg yàlla am nga suwaal boo xam ne danga ko koy laaj ne ko ndax ban waxtu la julli parce que dégg naa man si ay wax ne xaw ma def na ñaata fan xamatuma na jàppatuma jour yi mu def ban waxtu la la te dégg naa si dem naa ba dégg ni koo xam ne nettali na ne rakka bu njëkk bi euh, baqara la rakka asaani bi maanaam Ali Imran la. Ali Imran ci ci xaw waaw xam nga yooyu. maanaam yooyu am na yoo xam ne nit ku am xel sax waru ko jël mais nag man sama gëm-gëm ak li ma gëstu si Serigne gëm naa ne Serigne Touba nit ku baax la ku wéetaloon borom la mais am na ñoo xam ne bokk nañ si yoonam ñoo xam ne dañoo dem ba yàqal ko lu bëree bëri bëri bëri bëri bëri dañoo dem ba yàqal ko lu bëree bari bari bari bëri bëri si gannaawam loo xam ne tey bu àdduna doxoon tey bu Sëñ Touba dekkaat lu bëri te bëri na ñoo xam ne ñu ngi si ay njabootam ñoo xam ne si ay askanam ni ñu doxalee neexul ko tey bu dëppaatoon tey maanaam du du euh, ni ñu doxalee du du ko neex parce que sëñ Tuubaa diina la woote yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam rek la loon la topp parce que lu dem lu bu demee ba wax xaadimu rasulillah mooy bëkk néegi bi loolu li muy tegtale ne maanaam taxul mu nekk bëkk néegi bi jamono bi bi nekk jamono yonentu bi ba muy dund déedéet mais daf lay won na la loolu li nga koy mën a firee mooy yonentu bi rek lay roy léegi nag ñoom ñoo ko réeree mais nag man sama gëm-gëm sering Touba ni ku bax la ku sel la amna solo legi magal magal lan hmm. ci islam ci diine waaw legi magal hmm. parce que man euh, as euh, foofu non côté boobu non man bokuma ci mais magal si lima ma man nit ñi di waxtane ah, ñu ne sëriñ bi mo joge xam nga waxna la ci biir wax ne la sëriñ bi bam joge bam joge ci jógee si bi ba ñew waxna la ci biir waaw waxna la ci biir wax la waxut ak ken hmm. kon magal man mënuma ko saxal màggal loolu wérul amaana nag ñoom mën na nekk loo xam ne ñoom dañ koy woote rek ngir dajaloo. waxul ak kenn ndax dafa nekkoon résidence surveillée. te boo nekkee résidence surveillée man li ma dégg waaw. li ma man li ma wax ji nga ñëw si preuve bu ñu laaj parce que dafa am ñu bëgg a dugg. non déedéet man aw ma la wax dafa leer de. man dama li wax dafa leer. parce que ku wax na la ba mu ñëwee si tukki bi waxut ak kenn koy kooku loolu amatul ma kii ni kon loolu ku wax ne maanaam moo oote màggal gi loolu loolu kay jaaxal na wax ji maanaam dama lay am na solo bàyyi ko na nee am na solo jërëjëf. baax na jërëjëf waaw allo. maa ngi déglu kii faraluma sax di dugg ci ay TikTok yi nii quoi pour live ak yooyu quoi ndax damay seeraan vidéo yi nii quoi yu bari comme man li ma ci am lu may wax rek donte da ngeen a def live quoi pour di déglu nit ñi di wax yéen it comme maam da ngeen di déglu ci yu bëri gis naa benn waay ngeen coupé comme yooyu noonu maanaam Sénégal ñu ñëpp maanaam kenn ku ne xam na ni yàlla kenn du ko jaawale ak kenn yàlla mooy yàlla. yónente bi yónente bi la waaye sunu mag ñi maanaam yàlla dafa def ñoo xam may na la ay maxaama yoo xam ci yàlla la jóge donte nit la mu gëm nag naka bàyyi kenn ku ne mu gëm même chrétien bu gëm woon yàlla sax loolu la concerné bàyyi kook loolu waaye dugg ci dix-huit yi jàmbur yooyu baaxul. waaw man léegi ban preuve màggal ci diina la non waxuñu yi përëf màggal ñoom ñay concerné màggal ñi nga xam ne Sëñ Tuubaa gëm ñoom Sëñ Tuubaa lañ gëm ngeen bàyyi leen ak yooyu yéen fekkee yàlla yàlla kii ibaadu ngeen ngeen gëm seen ibaadu yi quoi waaw yàlla waxul loolu déglu wax la waaw xam nga maandu dafa baax yàlla li mu gën a wax maandu la yàlla wax waaw déglu la la sa yoon néew rek lool sa yoon néew ci quoi ñi gëm màggal màggal lañ gëm ñi gëm gàmm gàmm lañ gëm ngeen yàlla ibaadu ngeen ngeen seen sari nday dégg ngeen ngeen bàyyi Sëñ Tuubaa salaamaaleykum boo ko dee sari nday quoi. yéen saaga rek. ok doo bàyyi ko Younus coupé wax déglu. non même mbokk Ibnu Mouhamed. gis nga gis nga wax ni pour da nga foog ne rey nga gaynde yi ñoo nga wax sa wax nga mujjee saaga. instant yooyu ñëpp la xeeb képp ku lay seetaan rek danaa xeeb képp ku lay seetaan da nga ñàkk fayda ci kanamam. képp ku lay seetaan mok bayima wi bi xar beeg tag beeg béy bi la la jappé no ñoo ñoo ko tané cheikh bu len toñ nag sax ñoo ñoo tane parce que yalla nee amna sinir yo si nit yoo xam kal anam yalla nee banhum balhum adal ñoo gëna yé sax bayima ma parce que li nga def ni ku xelam matade rek mo koy def ñoo wa mbam mbam mo du saga alfa xara xara alfa mbam mo du saga mais ma ñoo nga duggu wax nga li nga wax paré nga ci magum jëm amana am nga soxna amana am nga ay doom yow pare li nga ko tëjee mom moy saaga ba pare di reetaan da nga dem ba da nga doyadi maanaam da suufee da nga wàcc ba zéro nee naa la saaga tegguwul neen saxalul bu saaga doon déranger ñun daw nañ bu yàgg façon saaga bu dañ koy dékku ñu dañ lay yéegal fii kay saaga ñu lay reetaan ko xam nga ni saaga mënul ñun dara saaga di soppu ñu ok. salaamaaleykum. ñu rek seen xelu bàyyi ma yi nga xam ne. Eh, asalaamaaleykum waaw Cheikh Alfa. Ya. maa ngi lay ziar bu baax. ziar Cheikh Yunus maa ngi lay ziar. Cheikh eh, Ismail maa ngi lay ziar soxna maa xadi. ana Baylo moom gisuñu ko tey de. ñu ngi ziar. delloo ziar. Baylo ana mu Baylo. est-ce que son si puniw ko Baylo est-ce que ko. ah man na nek de. <laughs> wa man de limay limay li rafetlu man man man man wax ak yeen salaamaaleykum. man mii di wax ak yéen. murit laa murit laa woon. yaa ngi may dégg bu baax. waaye li ma gën a neex si yéen mooy gis naa ne yéen li ngeen di wax maam dafa am wéeru baay bu dëgër ndax bu ñuy wax euh, lislaam alxuraan ak sunna mooy base bi. te gis naa ne yéen lépp loo leen wax di ngeen indi dalil bu leer wut fo leen ko teg xadis bi ngeen teg ko ci chaîne bu leer mais ñeneen ci des violence agressivité nekkut ci ay téere yooyu rek la wax man mii di wax yow dëkk boobu ngeen wax falaa dëkk falaa jàngee bi ma jàngee alxuraan fi ma fi ma doon jàngee ba bind kaamil fa lañ ma yóbbu may jàng xam-xam mais déjà bi ma fa nekkee di jàng xam-xam rek ci la xamé ni li ay tiaxan kese kese kese la ay fenn yuñ taxawal bu mu deugër dara dara du ci deug magal kep ku la bëgg wax ne amna ciess lay ci alcorane ak sunna waxul deug du farata du sunna du luñ sopp business la bu benn famille taxawal bu mu deugër not seen yenen moroomu famille defal leen lava cerveau ñu gëm ko de génération à génération so juddoo loolu lañ lay mooñaale nga magalé ko man mi sax loolu lañ ma defoon mais grâce a li ma jot a jàng kës néew donte awma xam-xam ak euh, bi may nekk euh, Touba dama daan am kaseti ku ñuy wax Cheikh Ibrahim Khalil daan ko déglu dafa am sama benn xarit bu sant ndooy bu dëkk ndooyeen bi si Mbàkke xam naa moo waxoon turam sax mën naa am ngeen xam ko mi ngi woon Égypte léegi mi ngi Arabie Saoudite ñoo bokkoon daara ñoo jàngandoo alxuraan maa ngi moom ko waaw kooku daal moom moo moo moo moo moo am na lu bari loo xam ne moo kii ci man mais li si ëpp nag man li ma gam-gamle xam yi may jàngal ñoom ak ni ñuy dundeek man bokkut parce que déjà buñ nekkee yow dinañ la wan ne ñoom ñoo la gën ñoo la supérieur seen doom na dem jàngi yow sa doom na dem ci daara ji tërbiyewu ji alors que borom Touba mom mi wax ci téré nahju khadail haj ke wa'lam bi annama yatafawatun al wara bil ilmi wad-din yakunu fasbira wuuteeg dom adam yep ci xam-xam ak diine kessé la nek ci lañu gëné nit la bin tisabi liman li man askan kenn du ci gën kenn dèjà kun bo mo bëggé gëm lu ne yow gën nga ma ci askan lool sa mo pose problème jàng na ci alcorane inna akramakum indallahi atqakum lolou ku gëna ragal yàlla mooy mooy kii fi ñuy langaamu nag mooy atiyon laha wa atiyon rasula wa ulil amri minkum waaye man la ma leen cay tegalaat mooy fa in tanazatum fi shay'in farudduhu ila llahi wa rasul wa ulil amri minkum sax lu gën a wër moom mooy njiitu réew yi atta sharia waa kay voilà kon kon mu gën a leerati foofu waaw solo mbokk. jazakallah xam général boo xam ne moo tarixa mu ne. waaw ma neex na lool boo amee ngërëmul yàlla yun waaw. mu ne bi. magal la ah hmm? magal la nga ci xalaat. allo. magal li ma business la business. ndax li tax li tax mu business li tax mu nekk business moy, boo ko ñi dëkk ci dëkk bi amul kenn koo xam ne da nga ciy gagné dara da nga ciy perte ñàkkee ci suuf ñoom ñi nga xam ne ñooy famille bi nga xam ne ñoo ko organisé ñoo ci am ay oto ceeb ñoo ci am ay oto dewlin ñoo ci am ay sa oto nag ñëpp ñoo ko ciy am di ci dund un wala di ci dund ay at mais ñeneen ñi ci des ñëpp defaraat bi ñuy defaraat seen kër yi pentiraat bi nii jënd ay rafetaay lépp ñoom dañ mu ñëw lañ fay sotti yoo xam ne année bi yëpp mën nañ see dund boo déggee ñu naan sama bis bi ma gën a fonk sama bis bi sama bis bi business la loolu ñëpp xam nañ ko lafti nag lenn moo fi am bu fekkee dëkk bi dafa am ay façon murid yu bëri am na ñoo xam ne jànguñu ay maanaam ay ay ay comme illaa kala kala anaam googu nga doon wax loolu lañ ñoom da nga leen di gurgur di yóbbu foo leen jëmale rek ñu jëm ñoom pour ñoom ay kii dara duñ am na fi ñoo xam ne jàng nañ waaye dafa am benn système bu fi nekk intégré nañ leen système bi ñoo ngi mos motax dañuy jema défendre li même xamnañ ay caaxaan mais dañ koy défendre parce que intégrer nañ len ñi ngi mos lu fi lu fi dugg ñu mos ci seen wàll ñooñu dañuy défendre affaire yi. amna na ñoo xam ne nag am seen gâteau seen gâteau lañuy lañuy lañuy protéger waaw. alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh inshallah allah ibnu muhammad kaddu am na leen gërem yàlla yàlla waaw may ma tuuti may ma tuuti ma ma teunk tuuti yeen xam nga luma leen sante leen bamba bamba rek may ki mu teunk moy moy yeen yeen yeen alpha Alpha hmm. Alpha yow xam naa la xam naa oustaz nangam kebe xam naa oustaz yu bëree bari cheikh yu bari mais maanaam yow gis naa ne risque yi ngay jël ak li ngay li ni nga assumer sa sa combat ba pare di di recevoir yenn coups yi mais li ngay jubbanti ci nit bul ko xeeb gis nga man mii di wax yow nii man jaa jàng naa tuuti mais déglu gima ma leen déglu daf may gën a réconforté ci li ma nekk ba nga xam ne nii maanaam fi ni man man man ni ma leen wanee ginnaaw sax mënu ma la ko wax daal. macha allah mais la fii ma nekk nii di dund nii kër kër gii ma nekk di wax yow nii ay fanatique laa dëkkal moo tax ma xaw a suufeel sama kàddu ndax bañ a heurté kenn mais man wallahi alazim ni ma dëgëree ci li ma nekk mun mënu la kaa wax te yéen joué ngeen ci rôle bu bari daal gis nga ndaw ndaw si nekk ci yéen di wax nii. dama koy faral di déglu mais même moom daf may motiver daal parce que bu ma déggee muy nettali jaar-jaaram tariixa ba nii ñaseen wirdu wañ ko joxoon ak ak léegi ni muy dundee loolu day day day motiver nit vraiment daal maa ngi leen sant baax a baax a baax. waaw yàlla macha allah macha allah. jërëjëf tawfeex. jërëjëf maa ngi leen di jaar de. Eh, Birane Diouf